a billahi mina sheytaani rajim mbokk yi ñuy topp ci seen internet bi di 24 actu desiwaat nañ yéen ci seen waxi sëriñ tuuba sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu am na bis weeru koor feeñ sëriñ bi wax ne ku mën a boole liggéey bi ak koor gi def ko ku ko mënul bàyyi liggéey bi te woor am ku ne ko mënuma woor sëriñ bi ne ko lu tax mënoo woor mu ne ko amuma lu ma doge amuma lu ma xadde sëriñ bi ne ko ma yaakaar ne lu am fulla ngay wax sa moroomum nit rekk boo ko liggéeyalee ba ngoon mu jox la loo lekk sàkkaa sa borom sëriñ Tuubaa mos naa yor bant bu def posen teg baaraamu dëyam ak baaraamu sànnikaay ba ci cat la daal di wax ni bu leen xeeb dara ci lu bon ak lum tuuti tuuti ba toll nii lu baaxit noonu daal waxaat ne fim na lii bu àndoon ak lam war a àndal fekk ngoon lu toll nan la fi mën a yàq ñu ne ko mën na fee yàq lu bari mu daal ne lu bonit noonu Sëriñ Tuubaa mas naa julli iid ba sëlmal di xool ba yam ci ay seng ci armeeli Njaaréem yi mu ne ku moom taax yi ñu ne ko ay xabru la mu ne déedéet taax yii laa wax ñu ne ko ay xabru la mu ne bum fi fanaan sunu borom bëggul kuy fo sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaara lahu mas nañu koy laaj ndigal ci yeesal barabu sëriñ Mamor Anta Sali nanguwul daldi ne loolu lépp du ko jariñ dara lama ko fa defal moo koy jariñ te def naa ko fa ba noppi sëriñ bi nee na am na ñoo xam ne ëllëg duma leen gis ndax lañ nekkoon dama caa nekkutoon kon mbokk yi fii dañuy yem ak yéen ci seen waxi Serigne tuubaay waaye itam di leen wax ne bu leen fàtte ne di abonné ci suñu site bii di 24actu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu